ñi atte Ziguinchor atte Dakar ci ñoom la ñu bokk. Mm-hmm. ñi atte Cour suprême sax ci ñoom lañu bokk Cour suprême waxul ne lii du euh, du jugement bu baax. la la la la preuve foofu dogguma la waaye si biir ñoom bokk na ci ñi fay nekk da ngay nekk ancien président cour suprême Amadou Amadou Badio Camara boobu noonu. voilà après nga ñëw nekk conseil constitutionnel waaw pour ñu tànn la. waaw après nga après foog nga bokk ci yooyu. waaw non foog nga nekk président ancien président cour suprême ancien président cour d'appel. wala ancien président ci chambre yi. voilà euh, wala nekk. Euh, inspecteurs yi wala nekk ancien professeur de droit avocat plus de vingt cinq ans. absolument waaw donc ñooñu xam nga. mais ñooñu mënuñu weddi ñi li ñuy wax. Mhm. xanaa c'est pas la justice. xam nañ cour yooyu ah xam nañ cour yi bu baax moom moom moom mi ko jiite moom Amadou Badio Camara xam na ko. xam na ko mhm. donc ñoom xam nañu ñii. lu ñu àtte mhm. dëgg la wala du dëgg. Mhm. n'est-ce pas. oui bi ñu jógee Ziguinchor waxuñu ne àtte Ziguinchor bi baaxul. dañ ne fu mu sukkandiku moo baaxul. mais jugement bi baax na. bi ñu demee Dakar ñoom ci ñoom ñoo xam ne dañoo bokk ci ñoom ñoom ñooy ne lii ça montre l'indépendance de la justice ma ne leen mbaadu. mbaadu. mbaadu. xam nga déjà bu ñu ne ça montre l'indépendance de la justice moom mooy que ne ñoom d'accord nañ ne li waa ji wax mooy dëgg. c'est-à-dire loo loo bëgg interpréter wax jooju. ma jóge tribunal. Mhm. yow nga bokk ci nguur gi. nga ne ma waa gis nga gis na li ñu atte nii cest à la justice est indépendante. Mhm. loolu mooy dëgg laa fa am. Mhm. te li ñuy atte moom mooy dëgg. c'est ça que ko ne oui après nag boo ma ne la justice est indépendante donc est-ce qu'il y a pas eu des pressions. auquel le juge a résisté pour dire le droit c'est ça qui qui veut la justice est indépendante c'est-à-dire malgré tout ce qu'on il a dit le droit mm-hmm. c'est ça ça m'a conforté à kii li mu àtte mooy dëgg mm-hmm. xam nga bu booy bokkee ci yoon nga ne non non non waa ji dafa wax lu ko neex rek mais xam na ne waxul yoon j'aurais compris j'aurais eu des doutes mm-hmm. mais tu me dis montre que la justice est indépendante ki ko njëkk wax d'ailleurs seen avocat wax na ko. seen avocat wax na ko ça ça montre que la justice est indépendante Seydou Gueye il a dit que la justice est ça ça ce verdict montre que la justice est indépendante. le droit a été dit. et le juge a résisté à des mm-hmm. c'est ça. loolu la su ah, loolu la ah, su. c'est ce que quelle que soit l'interprétation que tu peux faire koy dañ leen koy tuumaal parce que dañ leen fekkee dañoo àtte leen ngeen ne non non euh, la justice est manipulée su ngeen amee dëgg ngeen ne euh, voilà la justice est indépendante loolu ñaari camp yëpp lañ ko mën a waxal tamit. waaw mais c'est-à-dire que xam euh, a de fumée sans mm-hmm. chaque jour yàlla xam na ne ñu ngi àtte ci tribunaux yi te ñuy àtte dëgg. Mm-hmm. tribunal buy indi problème mooy tribunal boo xam ne yaa a un acteur politique et pas n'importe quel acteur politique ci jamonoy Abdoulaye Wade loolu lañ doon wax ne Abdou Diouf dafay manipuler la justice n'est-ce pas mm-hmm. jamonoy Abdoulaye Wade bu ñu indee Idrissa Seck ñu ne dafay manipuler la justice n'est-ce pas mm-hmm. Macky Sall nag moom il a battu le record tëj na fi Karim Wade exilé ko tëj fi Khalifa sal tere ko nekk candidat en 2019 tëj na fi euh, euh, euh, Ousmane Sonko ci maali foro parce que li mu jàppee Ousmane Sonko dara amu ci dara amu ci daf ko neex rek jaay ko doole dëgg tëj ko fële ba pare mu taxaw fii naan dafay dafay tàggatoo mhm. tàggatoo ci au même moment tu prends quelqu'un boo xam ne góor bu set wecc la nga dugal ko kaso muy tëj tëdd foofu te tegoo ko fen tegoo ko fen boo xoolee même son discours là dafa am lu koy ante loo xam ne lan lan moo koy ante moom moom violence yi la njëkk doore ah nee na dund nañ fi année boo xam ne mais kan mooy responsable violence yi kan mooy responsable violence yi kan mooy responsable bi moom ah bon mu nekkee violence responsable moom ñu jënk ko réew lu muy jiitee violence premier premier premier mandat bi mhm. dafa am problème non non amul benn problème mhm. mu ñëw 2016 ne daa day def réforme mhm. mu def réforme bi mu ne j'ai la constitution kenn mënatu fi def deux mandats 2019 bu muy campagne li muy wax nit ñi boo leen ma falaatee ce sera mon dernier mandat mon second et dernier mandat il n'est même pas besoin de dernier mandat mon second mandat moom mooy amul am troisième. Mm-hmm. du loolu la jaay sénégalais yi 2019 bu mu jàllee en janvier sa naataango ne ko ndax bii mooy sa dernier mandat du ma ne waaw wala déet. Mm-hmm. sénégalais am njiixi jaaxal ci seen xel ni kii mbaadu dafay présenté wu 2024 après tous les actes qu'il a posé ça montré qu'il voulait être candidat en 2024 loolu moo fi indi mars 2021 bi ñu indee seen li ko Ousmane Sonko tuddee te mu ànd ceeg moom seen procès tappale yi seen dossier tappale yi la preuve on a donné raison à Ousmane Sonko loolu mooy lan mooy que ni dem na tribunal teewul ses avocats n'étaient pas li ñu ko doon tuumaal ñu ne loolu dara amu ci amul viole amul menace de mort donc li ñu ko tuumaaloon yëpp ay pexe la. Mm-hmm. pexe yooyu moom moo fi indi woon manifestation man manifestation laa ko woowee qui a tourné à des wax wax na ci bus ba ñu sànni cocktail molotov ba ak yooyu yëpp ah. waaw cocktail cocktail molotov. oui waa ji nekkoon ci bus bi. moo ne dafa gis nit bu ñëw ànd ak flamme ki fekkeewul mu ne ko cocktail molotov moom fekkeewul gisul ki gis mu ne dafa gis nit ku ñëw ak flamme. Mhm. mu ne ko cocktail molotov waa ji répété cocktail molotov ana cocktail molotov bi ñoom ñoo seen cocktail molotov bàyyi la ko Ousmane Sonko. manifestation yi fi am c'est des manifestations populaires comme yi amoon en 2012 comme yi amoon en 93. mais li am lépp da nga ci bëgg génne raxas sa loxo Ousmane Sonko ba mu set nga teg ko na mais 2000 mars 2021 dañu ne woon lii ñi ñi génnoon ànduñu ak Ousmane Sonko. Mhm. Covid bee taxoon état d'urgence bi moo leen moom leen sonal rek moo tax ñu génn. Mhm. après Macky Sall la mu wax lu fi amoon dootu fi amaat amaat mu indi xëyu ndaw ñi mu yaakaar ne parce que ndaw ñi amuñu liggéey moo tax. Mhm. dafa régler loolu régler wu ko. xam nga kañ la euh, violence yi muy wax noonu kañ la kañ la kañ la cessé le 3 juillet bu mu ne nit ñi du nekk candidat gars yi ne ouf donc li nit ñi doon manifester yëpp c' était contre son troisième mandat. non mais euh, non professeur xam nga da am na yu bëri nag yoo xam ne procès Ousmane Sonko la lié. mais procès Ousmane Sonko maanaam bu ko condamné. parce que les populations estimaient que li mu defoon ak Karim Wade def ko ak Khalifa moom lay waajal contre Ousmane Sonko parce qu'il veut pas jàkkaarloog Ousmane Sonko en mars 2023 tax. même quand on a arrêté Ousmane Sonko les gens n'ont pas bougé. Mmh. parce que je dis que li ci des kii kay mun ñu neex naa muñ. je dis ce qui s'est passé ici en termes de violence qui hante Macky Sall aujourd'hui mmh. et c'est pas demain la veille c'est pour longtemps encore. Ah parce que 60 morts quand même. Mmh. 60 morts. c'est vrai pour des calculs politiciens enquête mérité na enquête pour compris mu ne ñi fi daanu woon. def nañ enquête voilà ce les enquêtes ont révélé mhm. c'est ça qui allait apaiser le peuple mais ñëw ubbi c'est pas parce qu'il n'a pas pris mhm. de la hauteur mais parce que loolu daf koy ante mhm. il fallait que du par parloo mais loolu loo lu mun lu mu munul génnee ci boppam la mais kan moo ko teg moo ko teg boppam quand les gens on manifesté ici il ay a pas eu autant de morts oui il pourquoi ces morts là on aurait tué des policiers ma ne gars yi ñoo génn di manifester yore seen gànnaay ñu fetal mhm. euh, policiers yi mais c'est des populations civiles ki meurent mmh. de l'autre côté y a des forces armées forces armées yooyu tëbu ñu rek génn dañ leen ne génn leen donc mu war amee nañ def enquête bu dul police bu dul police du gendarme ki ko mhm. def ñu identifier ko mhm. mais c'est comme si dañu bëgg xam nga Ousmane Sonko waxoon na ko et l'histoire lui a donné raison l'histoire lui a raison dafa ne man du ma Karim Wade du ma Khalifa Sall bu ma Macky Sall buggee euh, faagaagal il va se salir les mains. Mhm. looloo am. fa lañ toll fi ñu toll nii. looloo am. ak ak ak réew mi tamit li mu li mu. looloo am vraiment vraiment tamit métti woon na ci réew mi ah. non li euh, li woon na ci réew mi confrontation bi vraiment métti woon na je serai je ne serai pas d'accord avec Ousmane Sonko bu dee liñ ko accusé woon. jox jóg sénégalais yi ne liñ fiy wax ni yëpp complot la dara amu ci violé wu ma kenn. Mhm. ñu ñëw condamné ko pour viol. bu mhm. boobaa nag bu ma jàkkaarloo mu ne ne sa waay jëlal micro bi nga baalu sénégalais yi mais te il n'a rien à mhm. bu taxawoon sax mu lay ñu condamné ko on aurait compris mais moom teewul sax. taxul gars yi prouvé ne c'est un viol c'est-à-dire que tout a été de fil blanc. ok donc li mu waxoon sénégalais yi. Hmm. nañ ko jàpp man dama jàpp ne looloo am bu ma Ousmane bu ma Macky sal buggee gàllankoor il faut mu taxal ay loxoom taxal na ay loxoom. ah tax réew mi tamit tax na en tout cas. Ah. réew mi tamit tax na et vraiment loolu moom doy na war trop. trop et et c'est pourquoi euh, c'est vraiment dommage pour euh, pour un président qui quitte le pouvoir. mm qui ne va pas être battu par un adversaire mu waroon mm-hmm. nekk demin bu rafet rafet boo xam ne. Mm-hmm. histoire da koy retenir. nga def un discours de ce genre là. mais nee na dafay créer bu fi jógee benn fondation.